siifee ni ko ñetti fan ci weeru août njiitu mi daal jël dogal daal di euh, changé ki nga xam ne mooy euh, njiitub euh, commission nationale autonome du Sénat di Doudou Ndir njiitu réew mi kamu daal di mooy inspecteur général d'État bi nekkoon à la retraite di Abdoulaye Sylla mu nekk président bu Sénat ba tax na moom dañ ko daal di secondé ci magistrat bi nga xam ne moo nekk à la retraite di Ndari Touré nekkoon ancien assesseur bu juge Demba Kane nekkoon ci chambre criminelle moom mi nga xam ne moo doon jugé mbiri Imam Ndaw ñu am ci jamono ji nga xam ne daal contexte politique bi euh, jot na metti lool. ba tax na Alioune Tine bu Afrikajom Center moom nag ma ngay ñaawul doxalin bii waaye tamit euh, di yaakaar ni kat moom dafa daal di jommi nee na daal décision bii décision politique la waaye tamit lii wér te wóor lii dañ ko def rek ngir Sonko bañ a bokk ci élection présidentielle bu 2024. Amadou Ba bokk ca parti ba ñu sayal di Pastef moom ci page Facebook am bind ne njiiti réew mi amul benn sañ-sañ du nommé bu ñu sukkandikoo ci article 4 bu loi 2005 47 moom nomination bi da ko daal di dàq ba tey benn woy politique di Thierno Bocoum ne daal li nga xam ne moom la jiitu réew mi dugal ci contentieux électoral bi lii du dëgg du yoon ba tey ma nga daal di fësal ne kat ci mbind ne bu fekkee ne njiitu réew mi dafa décider ci jamono ji daa di yaa remplacer ki nga xam mooy Doudou Ndir ci contexte bi nga xam ne kat dañoo bañoon a délivrer ay fiches de parrainage Ousmane Sonko li wérte wóor mooy daal ne daal processus électoral bi des ko salfaañe mu Ndiaye Cissé bu ONG 3D moom nee na ci jamono ji nga xam ne ne ko njiitu réew mi defee ne gis daal mooy ne kat njiitu réew mi dafa bëgg a fësal ni kat membre ñi nga xam ñooy Sénat maanaam fa ma xool ngeen daal di xool ci fàttali fan fanweeri fan ak benn ci weeru octobre Doudou Ndir ma fi nekkoon président Sénat moom ci benn bataaxal dafa sàkk woon ci ca canoor ca Ndele Fall di directeur bu élection bi ne dafa war a jox ay fiches de parrainage Ousmane Sonko ndogal ba mu ngi daal di sukkandiku ci tribunal grande instance bu Ziguinchor ne kat dañoo war a dugalaat tur Ousmane Sonko ci liste électorale yi.